Sénégal benn Sénégal la du ñaari Sénégal benn Sénégal la yàlla na fi jàmm yàgg may sant aussi ñi nga xam ne tey ñoo fi nekk di sant waa quartier bi di sant waa mbuur di sant ñi fi nekk ci dëkk bi ñëpp am yëg-yëg ak cofeel ci li nga xam ne tey ñu ngi koy def waaye ñuy def mention spéciale suñu président di Ibrahima Amidou Dem mom mi nga xamne yalla mo def ci mbaxam ak katanam mu nekkal askanu Senegal, jël xolam bopam leppam ne Senegal la ko jox kon lepp lu mu bëgg yalla nako ko suñu borom may bi mu nekkee ci li mu nekkoon mu dem ba jëmmi jamono mu ne man gisatuma sama bopp ci li ma nekkoon lu tax mu ne ndax dama fi nekkal askan bi te dem naa ba mënatuma fi nekkal askan bi sama ngor mayatuma ma toog fi waaye nag duma bàyyi dem toog ndax bu keroogee duma jariñ askan bi lan lay def damay delluwaat ci tool bi fekk ji askan gi di liggéey ak askan gi ñuy bay di jóg ak daanu ba yàlla taw bu tawet naw jotee bu deqee mu jariñ ñépp loolu mooy yéeneem mooy ambition lan mooy bëgg-bëggam senegal dem ba ndox dootu fi ñàkk lan mooy bëgg-bëggam mu dem ba kenn dootu fi toog di wax baadoo la lan mooy bëgg-bëggam kenn dootu fi toog naan kumba am ndey ak kumba amul ndey lan mooy bëgg-bëggam senegal ñëpp bokku nday bokku bay poids bi équilibré ku ci nekk di gis sa bop kon mbébét yoy mu am ak bëgg-bëgg bobu mu am yàlla nako ko suñu borom jappalé may sante ak gërëm wa CM6 ñi nga xamné tay ñoma fi dalal ci turu juge Ibrahima dem di président parti mouvement ensemble mu tuddé ko ensemble. ensemble mooy kaaleen ñu bokk ndey bokk bàyyi ànd booloo dogal di nasandoo di noccandoo fii ma taxaw di wax ak tey ak ñii ma àndal nii tey ñu nekk fii ak ñeneen ñoo xam ne jóge nañ ci gox gu nekk muy waa Grand Mbour muy waa Daaru Salaam muy waa Onkat muy waa Coose ñi nga xam ne ñëw na ba jóge Carrefour ñëw dama ne bu élection nekkoon suba dinaa ne man président engagé ñu ñu dem élection wàllu parrainage liggéey nañ ci bu yàgg taxaw ndigal lañuy xaar suñu kilifa nekkoon tournée internationale ba ñibbisi fan yi ñuy préparer wara a def suñu tournée nationale bu ñu nee tëll nit ñi dinañ xam ne lañu ñu war mat na wala matul waaye mbuur pare na ci parrainage lépp loo xam ne taxaw nañ laaj ñu ko ci mbuur mbuur pare na te ñan ñoo ko liggéey muy ñiy taxaw tey di suñuy jigéen di suñuy frère di suñu ay yaay di suñu ay xarit di suñu ay tànn àndandoo amul lenn loo xam ne tey man jaaxle naa ci wala tiin naa ci président maa ngi lay wax yow le juge Ibrahima Hamidou Dème président parti mouvement bu élection nekkee suba taxawal nga engagé dem incha allah yàlla dina la may ndam.